candidat yu bari génn nañ ci jël seen fiche de parrainage loolu nan ngeen koy mën a expliquer. bon Pastef euh, benn candidat la am mooy le président Ousmane Sonko euh, nga xam ne. waa léegi ñeneen waa parti bi waaw moom laa lay ni dama lay tontu waa parti bi ñoo ko tànn euh, à travers 1600 délégués 46 départements ak diaspora haute autorité régulation du parti bi proclamé ko depuis le 13 juillet 2023 ñu doon daf suñu. investiture le 15 juillet ñu jaay ñu doole tere ñu ko euh, euh, léegi lu ngay wax noonu euh, ñoo xam ne dañu retirer fiche de parrainage. Mm-hmm. en tout cas fu may wax ak yooyu officiellement kenn du ci candidat. Mm-hmm. ñooñu ñëpp lu ñu def c'est pour renforcer candidature Ousmane Sonko sécuriser candidature Ousmane Sonko. Mm-hmm. ci esprit boobu nañ ko defee. te déggoo ci kenn wax ci parce que ku nekk candidat da ngay wuti parrainage ku nekk candidat di nga dégg ñu ngi ngay présenter programme wala projet. d'accord waaw donc dañ ko jàppee noonu. pour le moment Ousmane Sonko mooy candidat te yoon jox na ko dégg mu ngi ci liste électorale yi suñu demee retirer fiche suñu fiche de parrainage yi. ñu ne Ousmane Sonko. d'accord euh, déposé au niveau du conseil constitutionnel. loolu mooy objectif alors.